ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi nuyuwaat ziar leen bu baax a a ren ku xool Sadio Mané ak fin saison daaw bi xam ne Sadio Mané def na performance yoo xam ne war na mën a jël ballon man sans sénégalais moom mérité ren ballon si yoon quoi mais ñoo ngi ñaan yàlla tamit actuellement nii mooy zone bi gën a def performance si Afrique rawatina Europe

Messi loolu jarul laaj Messi ballon d'or yi fi jot a am yëpp pour Messi la jarul di wax keneen Sadio maane Van Dijk oo oh, ñoo ñëpp jarul buñ ko xalaat ballon d'or bi benn la Messi lañ koy jox ku ne dem. man daal ballon d'or bu ma soñoon dañ koy jox waa ji waa ji prouvé na Sadio chaque man li ma si gën a jaaxal mooy mu gis ay sénégalais yoo xamante nii ñoom def mel dañoo contre waa ji non di voteel ñeneen ñii xam nga bàyyi saajo nii te loolu du yoon quoi susuma nag suñu journaliste yi defuñu seen liggéey bu ñu defoon seen liggéey li leen war noo mu am coow comme ni ko ñeneen africain yi di defaree defar ko ay seen yeneen doomu réew kon Sadio dina ko jël mais bu ñu toogee nii naan saajo saajo saajo rek ñoom ñu war a voté voté wuñu te man sax maa ngi ciy dégg ne am na ñoon ñoo xamante ne sax voté luñu Sadio. ah loolu nekk na lu ñaaw rafetul Sadio Mané mérité na ballon d'or Sadio Mané mérité na lu dul loolu. sama xalaat bi moom su ma soññoon jox ko Sadio Mané xam nga Sénégalais laa Séné Sadio Mané laay faral ah su ma te def na fi loo xamante ni moom ñee kii wuñu ko def na fi loo xamante ne xëy na ñee mën nañ koo sut mais def na fi tamit loo xamante ne ñee def nañ ko mais su ma soññoon moom ñu jox ko ko. ci ah, sama xalaat moom moom Sadio Mané laa ko yéene moom. ah moom laay faral ndax sénégalais la Sadio Mané sénégalais la moom laay faral moom su ma soñoon moom lañ koy jox moom. dama Ballon d'Or boobu dama bëgg nag Sadio Mané jël ko vraiment mérité na ko mérité na ko trop trop sax sincèrement parler nañ ko jox Sadio Mané. waaw ah, mais en terme de logique Sadio Mané lañ war a jox Ballon d'Or mais Sadio Mané duñ ko jox Ballon d'Or bi ndax parce que il est moo tax loolu kese la parce que mag da am mais su doon logique rek Sadio maane xam nga moo war a jël Ballon d'Or bi te nee sax du yegg si podium bi kooku c'est honte gëm leen seen bopp sonn nañ Sadio maana la ñu wax Sadio maana la ñu wax mooy sunu yaakaar ñu ngi soog am joueur mel ni Sadio Mané ak Sénégal c'est le meilleur joueur sénégalais de les temps ñu ngi soog a ñu am joueur bu mel ni Sadio Mané bokk ci participer ligue Ballon d'Or lii suñu fierté la même bu ko jëlul sax ñun suñu xol sedd na ci moom. mën nañ am yaakaar bu baax a baax a baax a baax ni Sadio Mané mën na mën na mën na mën na génn. mën ko ko jox waaw le reste nak moy en tant que sénégalais ñu ñaanal ko parce que xam tamit bu ko jëlé dina gëna a ñaax jeunes ñu xamné xam nga mën nañ ko def mën nañ ko def parce que ñëpp xam ne il est c'est un garçon bi nga xam qui est parti de rien pour devenir aujourd'hui ce qu'il est waaw kon rien n'est impossible dans la vie daal nañ nañ nañ optimiste te ñaanal ko suñu borom xam nga. waaw loolu dañoo war a xam ne colonisation bu jeex na Sénégal mi def ay nombreuses qui di avancé yooyu yëpp tamit dañoo Sénégal tamit nous sommes des personnes nous sommes des humains du du ballon rek la ñu considérer boo ko jox ballon d'or parce que Messi champion là, euh, Ronaldo champion là, de même Sadio Mané champion là, Sadio da laa ko yéene te a def le moom finaaloon na dellu finaalu waat jël ko ñëw ba ñëw ba coupe d'Afrique Hein? final ah appelé leen bii mu dugal. bu ñu ko defee danañ def lu neex def lu neex ah mbirum tubaab noonu ay res lañ ñoo ñoo yem ah wane na ko wane na wane na ko ba pare def na li tax ñu war ko jox sama gis-gis quoi la li mu def pour jot ko métti defu ko di ñaan di ñaan daal yàlla na ko yàlla def mu jot ko parce que loolu suñu suñu suñu kii la quoi loo xam ne suñu fierté la Pikine suñu fierté la Sénégal suñu fierté la fi mu dëkk na ci ñëpp jàpp ñaanal ko yàlla yàlla jox ko dara jooyante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ah buñ ko ko joxul ñu xam ne ñoom loolu seen kii la rek ñoom ñooy ñooy seet rek ni ñu doxalee rek waaye ñu daal yéene nañ ko ñun Sénégalais yi bon sama xalaat euh, bi ci njëkk mooy analyse footballistique buñ ko defee ci kiñ ko joxoon daaw muy euh, Modric dafa final coupe du monde en plus final coupe du monde bi mu jël Ligue des champions ñu jox ko ko ci loolu lañu ñu basé wu jox ko ko bu ñu xoolee statistique am bu ñu xoolee statistique su euh, Sadio Mané ren tamit même chose la def mais def na plus que Modric parce que bokk na ci co-meilleur buteur Angleterre yi te Modric nekkuloon meilleur buteur ñaari trophée la génnee muy vice champion du monde ak Ligue des champions. Sadio daal yàlla na ko yàlla defal jàmm nit ku baax la. mi ngi dimbali dëkkam man damaa bëgg xale bu mel noonu gis nga bu ñu amoon diis yu mel ni Sadio Mané dëkk bi day dox defal na bàmbaal yi moo gën ñeneen ñi fi nekk wax lañ ñu mën ñu ñëw fi di ñu rey ay soirée sénégalaise di baatare di ñu napp Sadio Mané li mu def loolooy jër jër lool ngay def sa dëkk jër da ngay ñëw sa koñ nga xool ñi nga xamante jot seen loxo jotul seen ginnaaw nga ne leen coppet génn leen réew mi ñu dem uti lu ñu am Sadio dimbali na bàmbaal yi defar na dimbali mag ñoo fa nekk. jël na Ligue des champions wane na wane na ay ay preuve wane na li tax ñu war ko ko mën a jox nañ ko jël jox ko parce que moo ko mérité Messi bi mu ko mérité dañ ko jël jox ko Cristiano Ronaldo de même mais Sadio Mané moo ko mérité nañ ko jël ñu jox ko parce que moo ko mérité daal waaw ci ci ci ci gàttal parce que ñëpp wax nañ. même même même les Européens ñu ngi ciy wax xam ni moom ballon d'or bi nañ ko ko jox. mais bon sportivement non Messi moo war a jël ballon ballon d'or parce que aussi boo xoolee euh, Sadio Mané mën na mën na mën na ko jël fii ak déwén ak at yii di ñëw nii mën na ko am. mën na ko am quoi mais comme contexte bii nii mu ko kiiwee nii ren moom bon yaakaaruma ni war na ko mën am quoi mën na ñëw nag si ballon d'or africain bon mën na ko jël kenn ko werante. kon daal yow Sadio Mané di cinq premiers quoi. Euh, non mën na war na mën a ñëw sax ba deuxième position. mais ça va yow xamoo li ngay wax nga naan ay saa yow yaa ngi mel ni doo sénégalais euh, jour africain ngay nekk di ñu wax naan ñu ay lii ak lii kërëb kërëb Sadio Mané moo koy jël Messi du jël tous nga naan ay kii yow ngay capitaine galawaar di sénégalais naan ñu ay lii Messi du jël dara. mi ngi prouvé mais du pour léegi pour ca kanam la bu defaatee li mu defoon nii wala ballon d'or ñi ngi koy joxe. ci ay critère yo xamné personnel la Sadio Mané dafa ñew di footballandoog Liverpool ñom Van Dijk ñom Salah ñepp di dox mi ngi duggal ay bitam nak mais Ballon d'Or mom non mën na xaar ba ca kanam. bon en tout cas ma fait euh, moi en tant que citoyen sénégalais tout ce que je souhaite et, mon, mon parent Sadio Mané en tant que sénégalais je souhaite que pour lui qu'il prenne. ça, c'est mon première ambition. C'est vivre mon pays. Quand même, euh, Sadio Mané ramasse. Après, pour que mon pays sera fidèle, mon pays sera content en tant que Sénégalais. Je suis fier de Sadio Mané et je préfère Sadio Mané prendre. S'il ne prend pas, ce n'est pas euh, raciste pour que l'autre prenne, mais avant tout mon pays d'abord, avant tout Sadio Mané. Sadio Mané, mon final de Ligue des Champions perdre. Final, je l'ai gagné. Je l'ai le mérite de l'Angleterre du club. Sadio Mané dem na final Coupe d'Afrique te match yooyu yëpp defuñ ko Ballon d'Or bu fekkee racisme taxul moom Sadio ko bu fekkee danoo racisme nag moom jox ko keneen waaye nag Sadio moom moom Ballon d'Or bi moom loolu moom lu am la. Sénégal gépp xam nañ ni àdduna sépp sax laa wax xam nañ ki ko war a jël ko tegee ci yoon rek buñ ko tegul ci affaire racisme quoi teguñu ko ci affaire mooy loolu daal Sadio daal jàpp naa ne moo war parce que mooy meilleur buteur en Angleterre en plus final na Coupe waaw xaw ma nag buñ ko defee ci lu leen neex xam nga nag ñun moom tubaab yi moom par des fois ñooy def lu leen neex quoi parce que noir yi moom mooy loolu ba nii nii dañuy jàppe la ñu jàppoon ba léegi rek mais àdduna si yëpp xam na ni même Lionel Messi sax moom d'accord na pour Sadio Mané jël Ballon d'Or ak joueurs yi star yëpp buñ ko tegee ci yoon quoi. bu dee ay vote la normalement Messi moo ko war a gagné ci yoon fekkee Ballon d'Or bi individuel la Messi moo ko war a gagné parce que Ballon la quoi. nekul ki mo gagné lii moo koy jël rek ki gëna dox ci saison bi rek lañ koy jox. Eh, Messi moy meilleur passeur moy meilleur buteur té gagné na deux trophées. Messi mu nako jël mais bu fekkee performance année bi la Sadio Mané il a mérité le ballon d'or il a mérité le ballon d'or européen mais peut-être eh, Messi bu ko jëlé ci tour la ko jëlé mais pas performance année bi. performance année bi tay buñ koy xolé Sadio Mané la il était meilleur buteur sans marquer penalty 22 bi yépp euh, euh, euh, euh bi la ko duggal sans amul penalty ba pareil, euh, super coupe d'Europe euh, euh, moi, mooy indi Liverpool ñi dem ba final ba ñu dem prolongation un final dem tiré bi jël coupe vraiment ça, il a mérité le Ballon d'Or cette année le Ballon d'Or c'est pour lui il a mérité à 100 pas à 90 il a mérité à 100 le Ballon d'Or européen.